daw si len gaw ngeen abonné ci site bi ngeen tamo di Siweul TV waye bu len fàtte mukk beus kolos bi ngir ngeen di man di jot suñu programme fo le mënti nekk ci rew mi ak ci bitim rew bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah qa'il fi muhakkami tanzilihi لا مسجد masjidun على التقوى من من awwali يوم احق ان تقوم فيه رجالا يحبون يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بوكو جولي بوكو تاعي العالم الاسلامي بيب نيجي يكتي سونو كادو تي ديغلو سيرين توبا الشيخ محمود منتخا ميغا خاني موي في سيرين توبا تاي جي كاو سوف دي نيان مو ياغ في لول تا اندك وير bu ngeen déggee ma may wax ne mi fi nekk Serigne Touba néew na lool am na nag waaye néew na lool ma jëfandikoo al xalifatul am li tariqatul muridiyya li ko waral mooy Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké wax na ne mës sa woote tariqa te waxi doomu Serigne Touba dara gënu ko wér kon Serigne Touba muridullahi la woote muridullahi nag kenn gënu ci benn tariqa gënu ci képp ku bëgg lu baax rek jëm ci yàlla tabbi nga ci biir kon ci ndigalu Serigne Mouhamadou Mountakha mi ko fi nekkal ñuy ñaanu yàlla suñu borom dëgëral ko te sàmm ko ba mu mottali mboolem yéenam yi am ci lislaam yëpp di nuyu bokk jullit yëpp ak bokk taalibe yi di dellu si fii ci kàddu yi néew kàddu yoo xam ne yéeg-yéeg la ak xol bu fees ndax Serigne Cheikh Mbacke Guèye mi doon yëkkati kàddoom. dëkk bépp xam nañ ko te ñëpp am na fuñ ko teg fi bokk bokk na ci sëriñ bi loolu doo ko bokk ak ñëpp waaye fi ko ñëpp teg jikkoo ma ko ko kilifa gu baax boobu daa wax nag di wax ne Cheikh Abdoulaye di wax ni nit seen doyu ca waaye moom ku ko xam boo ko séenee te jaxasoo moom doo xam dëgg-dëgg pësteefam ak fi ne waaye wax wax waxam jiitey feeñal na ko wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun bu ngeen gisee mu yëkkati kàddu mu mënta wax sax ngir jooy yéeg-yéeg la diggam ak Sëriñ Tuubaa kon loolu lu lu njëg la ndax lii itam yàlla def na lépp waatul bu yoota min abwaabiha lépp ci moom la jaar moom mooy bunt bi ci la jaar ak si ca man dem ci sëriñ bi Cheikh Mouhamadou Mountakha mu fi nekk Serigne Touba ki nga xam ne mooy ki yéene jëf jëf ji ci moom la jaar mu ko indi ci ñun ñu àggale ko ci sëriñ bi ba sëriñ bi joxal ci boppu ndigal bañ tànn bis bi ñu war a teg xeer wi mu war a tolloog le 10 ca bisub gaawu te bisub gaawu xam ngeen ne Serigne Touba. lu bari ci la ko def ndax ci la fi bàyyi ko woon dem ci géej gi yu bari ci la ko def ci bisu gaaw kon bisu barkeel la ci ñun kon ñu ngi koy yëgal ñëpp danaa ci dellu siwaat di nuyu itam Serigne Fallou Bousso mi nga xam mooy xalifa suñu Massamba Kanni ak rakkam doomam suñu Cheikh rakkam suñu Cheikh na ak ñi fi teew ñëpp ànd ak suñu liggéey bi di jot jotle kàddu sëñ bi rekk ci mbégteem ndax kenn defalu ko lu ëpp lii ndax moom ab liggéeyam lislaam la génnul lislaam wax naa ko keroog ci bi waa daara Hizbut Tarqiyyah di siyaare may leen Cheikh Mouhamadou Mountakha ku ko xam xam ne itteem génnut ginnaaw jaamu yàlla yi te jàng xasida yi yëpp ci la dugg amut beneen liggéey ak yitte lu waaye si nit ñi am pëseef te dëggu jëm ci Sëñ Tuubaa kon lii ku koy def ko ne moom ngay gàttlu ci biiru liggéeyam ki yëkkati jëf jii nag di Serigne Dame Ndiaye ak rakkam suñ Dame Ndiaye moo ko def ndax moo jënd ñaar titre foncier titre foncier bi la ci gën a kiimaane mooy pàkk bi boroom ki ko moom njëkk a moom 1912 la ko njëkk a moom 1912 te xam ngeen ne ci la ci lañ indi Serigne Touba Njaarim kon loolu am na lu muy firi te pàkk ba kenn mosu caa dëkk dafa mel ne masaliku jaan kenn mosu kenn mosu këru njaarim gi non la meloon suñ Tuubaa lépp lu ko suñ borom def rek day mel ne li ngeen di tudde léegi réservation moom la ko suñ borom defal lu agsi rek da waxoon na ko Cheikh Mamadou Moussa ne ko sama mbir yëpp noppi naa ci da mel ne rab rab bi nga xam ne dafa defar ay séram ay soru ay soru rabal ba mu ba mu mu denc ko ci barab fu fu jamono toll ma tàllal ci yoon sor ñëpp ni lii ana fu mu ne woon kon mbirum Sëriñ Tuubaa lépp noonu la demee kon nag moom na xam ne dugal na àllam fu ko mata dugal ndax rasulullahi dafa wax ne man banaa lillahi masjidan walaw ka mafxasil qasa qata bana llaahu lahu baytan aw qasran fil janna ñeen lu tane tàggum picc sax ku ku defaroon suñ boom néegu yàlla bu tonoon suñ boom dana ko defar ab pale ci àjjana kon loolu nañ xam ne dara ëpp ko tuyaaba kon ku yàlla defal tawfiix suñ borom wax na ci alxuraan ne hal adullukum ala tijaratin tunjiikum min asaabin alimin tuuminuuna billahi wa rasulihi wa tujaahiduuna fi sabilillahi bi amwaalikum wa anfusikum kon kon joxe sa alal dara gën ko màgg ci lislaam mathalu lasiina yunfiquuna amwaalahum fi sabilillahi ka masali xabbatin anbatat sab'a sanaabila fi kulli sumbulatin mi'atu xabba wallahu yudaa'ifu liman yashaa wallahu waasi'un aliim ndax suñ borom noonu lay jëflanteeku jaamam ki nga xamne dafa jël wenn pop pepp dugub ji ci suuf bok mu mag bu ci dafa ay gub gubb ne dafa ay téméré pep suñ bob non lay fayé kon lool moy jëf ci yoonu yàlla kon nak na sant yàlla bu baax ta xamne ku yàlla defé tawfiq ba nga jëfël Sëriñ tuwa na nga xamne say aaju fajo ndax lool moko wax waqdi di xawaa i fi khidmati wa hablahum maaraamu fim ko wax bari na lool kon képp ku liggéey sëñ Tuubaa lépp lu si di ragal mucc nga ca lii si di yóotu na la woon danga ko jot kon na ko yàlla dimbale kattanal ko wéral ko ba liggéey bi nga xam ne sumb nañ ko ca cees mu nekk ci biir dëkk ba mu àgg jàmm ba mu jébbal sëriñ bi ceeb yi ba sëriñ bi joxe ndigal ñu ubbi ko ñu ànd ko ki nga xam ne moom la tànn mu jiite ji ko ñu àndaat ak moom kon jo ci ndigalu sëriñ bi incha allah buñ ci àggee ci bis ba. Euh, maay demal sama bopp ci ndigalam ak ñim ma booleel ngir dem teewal ko fa ngir xam ne itam jàkka ja jullit yëpp ko bokk taalibe suñ Tuubaa yëpp ñu ngi leen ko yëgal ka ci jiitu nag mooy ko ko nekkal Cees ak la ko wër di Serigne Saliou Touré di ko ñaanal suñu borom mu guddal aw fanam te wéral ko te sàmm ko gën ko fee sàmm ndax magum lislaam la magum yoonu murid la koo gis xam ne nitu yàlla la kon ñooñu ñu baax lañ ci kaw suuf ndax wa ma kaana allaahu li yu'adhibahum wa anta fihim loolu rasulullahi suñ borom nekk gi mu nekk ci kawoon su kaw tax kon nit yàlla yu mel noonu nekk gi nekk ci kaw suuf daa tax jàmm di fi di ko yëgal mboolem taalibe Serigne Touba yi yëpp ndax moo fa yor kàddu suñ bi kon bu ñu ko tuddee taalibe Serigne Touba yëpp tàbbi na ci biir ña nga xam ne ñoo fa yor wàllug adduna gi itam tàmbalee ci gouverneur dañ wax ma ca taxawaayam ci kayit di moo préfet ñañ ko àndal ñëpp ba ki nga xam ne yàlla def na mooy meeru dëkk ba di Talla la te yàlla def mu doxali sa doxali sama digg ak Sëriñ ndax taalibe ma Sëriñ Tuubaa rek lañ yaakaar waaye yàlla def mu xool ba xelam daj ma mu doxali ma sama digg ak moom itam wax nañ ma taxawaay bi mu ci def ñu ngi ko ci sant di ko jigéen te xam ne yàlla loo ko defal Sëriñ Tuubaa loo ko defal kon nag ñi ngi ñaan ñu àgg ci ak tañ xam ne wa anna al masajida lillahi falaa tad'u ma'a allahi ahadan néegub yàlla néegu jàkka néegub yàlla kon képp ku julli rek kenn génne wulu tañ xam ne alxuraan kat am na lu ñu wattandiku la woon allazina taxasu masjidan diraaran wa kufran wa tafriqan bayna al muminin wa irsaadan liman xaaraba allahu wa rasulahu min qablu wala yaxlifuna in aradna illa alxusna wallahu yashhadu innahum la kaadibun daal koy ca tege na laa taxum fii abadan laa taxum fii abadan kon jàkk joo xam ne xew na lool léegi nag jàkk joo xam ne nit ñi dañ koy tabax te jàkk ja mu wóor la ne tàggale julli ji lay jëriñ ndax ñaari jàkk yu sësaloo wala jàkk joo xam ne da ngay romb jàkk ji dem julli ji ci loolu nax sa bopp la ab jullit jàkk joo ne tabax nañ ko te ussi sa ala taqwa waroo ko faa romb di julli ci yeneen jàkk kon loolu itam yéen ñi nga xam ne yéen tabax jàkk ji ngeen bàyyi ko ci xel di ko digal ñëpp itam ñoo xam ne jàkk yi néegu yàlla ndax suñ borom bu doon amum néeg ci kaw suuf jàkkale doon kon jàkk ji nag ñi ngi rafet njortu ci ne mën naa bokk ci la masjidun ussisa ala taqwa di ñaan yàlla na ko suñu borom dugal te daray njistal bañ cee dugg ndax wa rubbama ibadatun kathira qad qad afsadataha lahzatun haqira si leen gaaw ngeen abonné ci site bi ngeen taamu di Siweul TV waaye bu leen fàtte mukk bës kolos bi ngir leen di mën di jot suñuy programme foo leen mënti ci réew mi ak ci bitim réew